non non non non eh, Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh bàyyi leen ñu def lu ñu bëgg a def yeah non bàyyi leen yeah Sénégal ah, man la Assane Diouf encore xam nga maa ngi dem live direct xam nga waa digg yi ñëwaat sama kër xam nga nee nañ par force xam nga jox leen ma ko sama wax naak samay avocat wax naak ñëpp xam nga nee nañ par force dañuy dajji seen martu lañu ñu yor nag ak seeni bagage comprendre nga eh ndewali arrièreal fële bu leen bu leen def dara bu leen def dara bàyyi leen leen ñu def lu ñu bëgg a def bàyyi leen leen bàyyi leen leen parce que wax ñu ngi wax ak seen seen commissaire ci boppam bàyyi leen leen bu leen bu leen bu leen nekk di def dara non nañu dajji bunt bi parce que dañ dama am ay droit yeah dama am ay droit sooda ba yeah yeah convocation dañ la koy jox wax la heure nga dem wuy ji yeah xam nga grand demal toogi demal toog yeah non non non non non non non non non samay avocat laa doon waxal léegi non non non non non non leen non non non leen